li nu fi indi te bàyyi fi di ñaan yàlla ramadaan bi génn yàlla na lakkaale lépp loo xam ne bi ab safaan la ci ñun te mu bàyyi ñu jikko joo xam ne dañ koy weewaat ba déwén dañ koo baaxoo di ko def ngir di fàttalente fàttalente bi mooy àdduna day dox dañ nekk ci àdduna war a xam liy dox ci àdduna war a xam len lu nekk nuñ koy moytoo ak lu ñu war a defit nuñ koy defee àdduna moom fitna rekk la baaxoo ak coono wante nag du tee ña doon baax ñi ngi baax ba léegi rek yàlla ñu yàlla boole ca ñooña àdduna bi day mel ne day gën a bon jamono ju dikk gën a bon yu jëkk ja ndax at yi yëpp ñu ngi leen di fàttali tollukaayu àdduna bi ak fi diine ji toll xam ne boo waroon àdduna ba mu daj doo fi gis benn benn benn dëkk boo xam ne mi ngi àttewoo lislaam dafay am lu mu jàpp rek muy ay intere mu tudde ko lislaam di ko àttewoo waaye lislaam kenn àttewowu ko loolu nag dana dellu ci mbooloo yi waaye dana dellu nag ci ñu mag ñi nga xam ne ñoo yore doole yi te yore baat yi te waxtu nekk nag Arabie Saoudite la yi ndax dëkk boobu nga xam ne fa la Màkka nekk Madina du nekk fa yonent bi tëdd fa saxaaba yu baax yi nekk fa lislaam wàcce woon foofee dëkk boobu ñoo waroon a joxe exemple ci àdduna bi ba ñëpp roy leen te ba fa yàlla defee loolu ba noppi nag jox na leen kàttan jox na leen xam-xam jox na leen doole jox na leen man-man bu tax nu war a àtteewoo lislaam waaye nanguwuñu ko moo taxit yàlla fu mu toll yàlla fu mu toll bi ci guddi rek junni junni misil sànni nañ ko junni junni misil lañ sànni ci ci biir réew ma big ci guddi bi rek juróom-ñetti fukki nit lañ ci rey ak juróom-ñeenti juróom juróom-ñetti junni juróom-ñetti téeméeri nit yoo xam ne dañ leen a blessé te julli seen jàkka ñu fekk leen fa ñuy def xiyaamu layli ñu songu leen fa rey leen tasaare leen toj seeni kër jullit yépp ni cel di seetaan te jullit yi di milliard ak genn wàlla mat nañ ko ci àdduna bi te alali àdduna yépp ñoo ko yore kon nag ñàkk a nangul yàlla moo tax yàlla seetaan lii te waxuma la de Arabie Saoudite Makka Pakistan Turquie Égypte ñeenti réew yi képp laa wax bu ñu mànkoo woon bu ñu mànkoo woon laa wax kon lee ñuy def Israël lee lee Israël dégg Égypte Philistine kon du ko mën a def waaye kenn ku nekk yaa ngi toog sa ruq faalewu lislaam lislaam aw tur la rek tey ñu ngi nii àdduna bépp at jullit yëpp am am gàcce tey ñëpp ñëpp rus ñëpp rus parce que juróom-ñeenti million Amérique ñett téeméeri million jullit yi nekk milliard ak genn wàll ñu dëkk leen toroxal te mënuñ caa génn war nañoo xalaat seen bopp bu baax war nañoo xalaat seen bopp bu baax xam ne lii de fa muy mujj ak ñoom du baax te caay-caay gii de Israël ñi ngi koy def waaye fii ñu àgg nag Trump mi fi bàyyi ko moo ko fa yóbbu moo tax jamono ba muy ba muy wate ca njàlbéen gi laa leen waxoon ne ñaan leen trompe bu mu yéeg ba ñaanut ba mu yéeg def caay-caay goo xam ne kenn mësu koo gis ci alamu islam yi may leen ñaan leen mu wàcc moo tax dañ yàlla toroxal na ko wàcce na ko ci benn mandat te loolu Amérique ñaari ñaar ñaar ñaari président ñoo ko fi defe kon moo leen ñaareel Biden Joe Biden moo fa nekk tey waxagul lu leer ndax mbir mii dafa waroon a dafa waroon a dafa waroon a taxaw ndax conseil sécurité wax nañ ci ñu baree bari wax nañ ci waaye lépp nañ bu nekkoon Amérique lee Israël def dana dakk waaye nee na moom day seetaan day seetaan nag ñaar ñuy xeex kenn di nga puudale ka ci des nga ne damay seetaan loolu ak sot lay tekki waaye noo ngi ñaan Biden Joe Biden su fekkee ne mbir mii def cee laal dara nekk ci suuf di dimbale yéefar yooyu la daloon tromp lu ko raw yàlla na ko dal ndax gis nañu ne mu ngi tàmbali di lawal ak góor jigéen di ci force réew yi ba suur réew mi Sénégal ñu ngi ko fi jéem a dugal ba ñu ngi def ay tappale defe ne mën nañoo fexe ba jàllale ko waaye du jàll mukk jarul jéem jëru sonn ak ngóor jigéen du law ci Sénégal mukk ci àdduna ba abaat nay tukki booy ba ñu bàyyi ci xel bu baax a kon lislaam ji de foofu la toll néew doole rek te néew doole ñoo ko teg seen bopp yàlla jox na leen kàttan jox na leen lépp li ci war kon lu ci lu ci des ci ñun la dese waaye du ci du ci yàlla pétrole beeg lépp ñoo ko yore waaye tey Amérique moo leen gaw moo leen moom moo leen yilif Amérique lañ gën a wóolu seen bokk jullit kon alamul islam yi foofu la toll lépp yàqu na conseil sécurité doo dégg kenn mennam Erdogan mennam Erdogan ngay dégg mu yëkkati kàddoom di wax di soow wala Iran doo fi doo fi déggaat keneen ñi ci des ma bokkuñu waaye de nun bëggoon nanu président de la république bu Sénégal mu yëkkati kàddoom wax ci parce que Palestine dañoo dañoo taqoo ak Sénégal yàgg nañu yàgg nañu ñoom moom ñoom sax jiite woon nañ ko Sénégal gi jiite woon nañ ko conférence islamique kenn déggu leen dara xewut waaye nag war naa yëkkati kàddoom ndax ba mu xew ba mu ba mu xewee ca France ci Charlie Hebdo fii lay jóge woon nag dem ba mu demee naan nu nu xaw nu mu ko waxee ci tubaab kamana dem nag naan ci Charlie Hebdo ci ci wu wu ñooñu xam ne ay saay-saay képp lañ buñ defee luy lu toll nii l'islam te nga jiite quatre-vingt-quinze musulman ci ay jurit war ngaa yëkkati sa kàddu bañ dégg la kon donk ci ciy déglu waxtaan wi nag du du gudd ci juróomi tomb rek laa koy def bu njëkk bi mooy sëriñ seen bopp war na noo wax ci seen mbir ndax nu it nag ci lañ bokk am nañ ci droit waaye takk der yi nga xam ne ñooy police yi war nañoo wax ci seen mbir ndax am nañ ci droit nag ndax nun noo leen fi teg ngir ñu sàmmonu waaye docteur yi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital yi war nañoo wax seen mbir ndax nag ñun dañ leen fee teg ngir ñu sàmmal suñu wér-gi-yaram journaliste yi itam war nañu wax ci ñoom ndax ñoo ñu di jot li xabaar te xabaar yi dafa nekk war a nekk xabaar yu dëggu politiciens yi nag moom ñoo waroon a jël lépp moom mu jeex parce que nag ñoom ñoo yore suñu mbir te it yoon yi jaar kenn xamu ko sëriñ si diine tumuranke na diine jaaxle na diine xamatul fu muy jëm te diine de lebalu leen lii kenn ku ci nekk ne diine teral na la teraanga joo xam mënoo ko am fu ma ji diine nga waroon a wàññee ko teraanga ñu nga delloo ko diine kenn delloowu diine dara kenn diine delloowu diine dara Sénégal gii bu ñu fi nekkee quatre-vingt-quinze pour cent diine mënut a am benn baat benn taxawaay bu mënu ko am ba waxumal dara waaye gis mën a gis weer woo woor waa woo woori sax julli yi mënuñ ko te dara tegu leen ko lu may ñàkk a mànkoo ba mën a am baat tey jii bu fekkoon ne dañoo mànkoo woon ba am baat dañ leen tëralal loi boo xam ne bii loi boobu ci la sukkandiku ba buñ neetee weer yu feeñ la ñu ne weer yu feeñ la buñ ñu ne weer yu feeñ waaye di xëccoo yow amoo baat cim réew kenn tegu la fenn joxuñ la benn statut amul loo doon jéemoo ko kaas jéemoo dara nooy def ba lislaam am doole lu may ngay jé jéem a xëccoo aw weer bañ naan ñetti ñetti président lañ ko def ñoo koy jiite sëñ bi ñii ñàkk bopp ñetti président ñooy jiite seentu weer wi weer yi ñëpp ko mën a séentu ñëpp ami bët amu fi commission dara ñëpp ami bët jumaa nekk da ngay séentu weer yi bu feeñ ñu xam ko am na lu nekk ci biir lu ñu waxut juyoo gu bari gi nga gis nag bu leen defee ne yàlla du yàlla juyoo gi du yàlla de kenn ku nekk da bëgg a siiw rek am na loo bëgg amal te xam nga ne ci juyoo gi nga lañ lay xamee ba xam yaay kan nga mën a taxawal li ngay taxawal dong noonu dooni dof weer feeñ naag weer feeñu daal buñ ci di xuloo am na ci mbir ma loolu nag sëriñ si ñoo ko may dindi yàlla sagal na leen jox na leen baat nañu nañu nañu wañ loxol gouvernement bi bu fekkee ne am mënuñoo am loi itam ñu defal leen boobu conseil supérieur islamique boo xam ne mooy tiim loi yi conseil supérieur islamique boo xam ne mooy tiim loi boo bu assemblée bi wateetee ba noppi loi boobu balaa jàll dañ ko yót kilifa yi diine yi ba ñu walidee ko bu ñu ko walidee wut du jàll loi yi loolu lu yomb la seen loi yu ñuy tëral ñoo ko tëralal seen bopp rek du dara te lii ngeen yore yàlla leen ko jox kon sëriñ si nañ dellu siwaat seen bopp xam ne yàlla teral na leen association islamique yéeg gars yi ngay gis ñu yëngutu yépp kenn ku nekk da am intérêt booy xeex rek waaye du yàllay kese bu doon yàllay kese benn bis mën nañu koy régler ko liñ bëgg ci réew mi dana am te kenn mënta tee mu am wante nag bu fekkee nii la ñuy doxe bu fekkee nii lañuy ñuy doxe wallaay gars yi nga xam ne day beneen culture lañ yoree yoree ko réew mii dañ yàggawaat suñ kaw di ñu nappaajin bi leen neexee te duñ ci man dara kon nañ dellu siwaat seen bopp ndax nag kat mag ñi def nañu li waroon def de ba ñëwee mu jafe xool nañ lañ waroon a xool stratégie yi ñu waroon a jël jël nañ ko ba taxawal nañ li ñuy taxawal ba soppi nañ àdduna ba teg ko seen loxo waaw nun nag mag ñi dañuy liggéey sëñ Tuubaa yi lim def ba dëkkam bii mel nii mburu dañu ko ca tàll ba lépp ñëw mu teg ko suñu loxo ay doomam ñëw fii mu dox baag si ba ci ba ci ñi fi des nii ñi fi des ana luñ def ana luñ def dañuy toog rek ne barkeb sëñ Tuubaa bi nit ko nuyu su ko mu mer boo toogee ji boo toogee ci kaw nga toog suuf nga mer boo ko waxee nga ne sa morom waaye yooyu yëpp amul solo li amoon solo mooy ñu def ñu def taj tajdiid suriyatan tayyibatan tujaddidu nahjan nabiyal Mustafa tajtahidu loolu lañ leen di doyee waaye lii nga xam ne moom lañuy ñuy wane nii kenn ku nekk di wane ne maa ma ma maa ma maa gën sa moroom maa ngi lii maa ngi laa te taj jëf amul nit ñi du ñuy dof ñu ngi xool di xam ku dox ñi xam nañ ko ku doxul xam nañ ko. lii suñ mun taxaa def daal laa xam mbir bu dikkee baag say loxo la nga yéene war a def daal di cay nekk ndax lee muy def de bu fekkee yàlla dimbali na ko ci suñ tuwaa far ko ci murid yi far ko ci ba mu àgg dana bari lu ñu doon naxaat loo xam dana dañ waaye nag ndax ñi ngi koy jàppale ndax ñu ngi koy jàppale te loolu mat naa xool te nag noo ngi xippi suñuy bët di xool yàlla lañ yàlla lañ gëm yonente mooy suñu yonente sëñ Tuubaa mooy suñu wasila ku jaar ci yoon yi ñu xam ko ku fi jaarul ñu xam ko koo xam ne kii da jàpp ne barkeb sëñ Tuubaa bii nag lekk ak naan dang la ak sol say mbubb ak say def def say kër yu rafet wut say oto bu fekkee dangaa jàpp ne loolu dong la yow de de li wérte wóor wooy béréte woo sëñ Tuubaa di la boole ci suryetan tay suryetan tay batan tujadidu loolu mu walaa bale fii nag ni la walaa bale Tiwaawan ni la walaa bale Njaasaan ni la walaa walaa bale Laayeen ni la walaa bale Kawlax ña fa nekk ma ne nañ taxawaat takk seen ndigg yi la leen seen bàyyi ak seen maam yi bàyyee woon ñu amélioré ko bu baax ñoom itam ba mën a taxawal loo xam ne lii dana dëppoog seen jamono te li dëppoog suñu jamono mooy looy taxawal dem ba assemblée ñu te ñu ñu wate ko ay loi nga jaar ci kaw loi yi sukkandikoo ci ba def li nga bëgg a def waaye waxi kese du sottal kon foofu rek laa ci yem takk der yi booy wut booy booy booy bëgg gis nit ku réew ak nit ku xamadi ak nit ku mënta joxe cër ak nit koo xam dañ koy màggal te du màggal kenn nit koo xam dañ koy wormaal te du wormaal kenn nit koo xam dañ koy moy moytu kenn ngir sa salaire buñ koy fay par weer boo bëggee gis ku mel noonu gisal ab police mbaa nga gis ab gendarmerie parce que liñ gis te di ko xool mooy gis nañ ne ñi ci ëpp ci ñoom am na ñi ci ëpp ñoom du ñëpp nag ndax am na ñu ma ci xam ñi ci ëpp ci ñoom saabu buñ jàkkaarloog nit nuñ koy toroxale rek moo nekk seen xel te lii may wax kat ñëpp a ko xam saabu buñ yow même amal dëgg ñàkkal dëgg buñ jàkkaarloog yow maanaam ci seen kanam yi rek ci lañ lay di la terroriser yow di la boo boo leen gisee ni lay def dong kanam yaag ni ñuy waxee yow képp ñi nga xam ne kii ab terroriste la koo ci dugg ci bureau boo fay jógee sëñ bi da say tànk day laxasu te yoo xam ne yi kenn xamul lan la lii xew bëkki démb ci tubaak gii xaw ma président bi ngi koy dégg xaw ma ministère de la force armée ñu ngi koy dégg lii xew ci Touba gii bu delloo xeweti jàppale na lu lu ngeen jàpp ne doo am rek dana am kilifa gu nekk ci këram di ko jub ñépp xam ak juba ak mbaaxam doon doon doon kilifa ci dëkk bii sëriñ bi nga ne danga am koy seet amook teeylu dem fekk ko këram dajji këram fekk ko ci biir néeg ba dóor ko yeew ko génn ko ci biti def ko lu bon loo xam yóbbu ko ca commissaire ba dem bàgg ne ko damaa juum loolu loolu loolu loolu loolu <laughs> loolu doy na war su fekkoo ne loolu dafa doon lu bees loo xam ne lu lu bees la ñu ne dañoo juum waaye yéen fii ci couvre-feu bi gis ngeen nit kuñ fekk ci biir jàkkaam génne ko dóor ko ba xaañ gis ngeen kilifa koo xam ne gi daa génn ci këram bëgg a jëm ci jàkka ji ñu dogale ko yan yanu ko dugal ci biir oto bi di yóbbu gis ngeen fii nit ñoo xam ne bii dañ leen di fab sànni ci biir oto yi di leen dëgg te di leen maase di leen def yu bon yoo xam ne kenn xamul lan gis ngeen fii kilifa gu ngi jàpp mu leen wax ak ñoom ñu naan ko sa kilifa gu mag sax bu ñu ko jàppoon nii lañ koy def xam nga li ñu bon ñu ñoo bon taxamat yi waaye ñi leen di jox ñi leen di jox baat yi nag ñooma ndax nit ki bala nga koo jox baat mu yor sécurité am réew day xam réew ma te nga xam kooku mooy kan ndax sa da gis nga saa bu ñu la waxee ne sa jaam ba moom lañ fal moom lañ fal chef euh, moom moom lañ fal chef de canton booy boo yenu say bagage xam ne bu xëyee yow lay njëkk a toroxal daf cee bari ñoo xam ne bii nag ay mekkontaan lañ mécontent lañ bu ñu leen defee ay ma wala ñu def leen ay ay ay policier li ñuy def mooy kilifa gu baax ñu gis mécontent googu mu leen puus bopp buñ luñ ko mën a def ci ak toroxal ak ak doyeetal danañ ko def te lii xam nañ li ma wax kon xool ñi indi fii ak niñ leen di tànnee nañ xool ni ñeenti fi ñu leen tànne mas na ma am fii koo xam ne sama oto laa yebal ay jigéen a ci nekk ak ay gone ak dund bu jëm ci daara bi mu demee fii ci panel ku ñuy wax jàlloo jàpp ko bi ko jotee dama ko ne waa jàll loo bi mu ne ma woto bi dafa am problème ma ne ko ah waaw man man maa ngi ko jënd kayit yëpp mat na mu ne ma dafa am problème ma ne ko comme dafa am problème léegi téyel euh, téyel carte grise bi ak ak ak ak yim aju yëpp comme dafa guddi nii te mi ngi taw te ay dongaa ci nekk ak ay jigéen baal ñu yóbbu mu mu lànk ne ma ba ma ko waxee ba dafa ma ne man doo solo sëriñ ah ma ko waaw yow lu ci dugal dugal ak sëriñ xanaa santu mbàkke wee tax waaye man dama laa wax ne bàyyi leen ñu yóbbu ñu ñu yóbbu ca daara ja wàcce bagage yi ak gone jigéen ñi ndax da mi ngi taw te daa guddi noonu la lànke ma woo pré représentant ki représenté si si suñ si si si si ñii bi mu dikk wax ko mu làng nga xam ne maire balaa mujj woo mu abal ma woto ma ñëw dindi bagage yi même bi ñu ne bagage yi nañ ko wàcce dugal ko ci biir kos bi sax dafa làng te mi ngi taw ak jigéen waaye defe na kooku mérite na ñu di ko ñu di ko jox ak benn ndomba tànk maanaam ku ñàkkee noonu yërmaande même bu bu ma dul sëriñam du ma daraam it mais ay gone dong mu jant soo muy taw mu yor ab dund kër gi mu ko yóbbu nekk nii te jàpp nga woto bi loolu loolu may leen gis ngeen ko nii yu suufe yi lañ yor waaye nag sant naa ci yàlla ndax ba mu ko waxee ba noppi ñi muy liggéeyloo da ca am ko Baay Faal la mu dee ma ne ma sëriñ bi bàyyi fi waa ji te seeti kilifaam ba ma seetee kilifa ga ba ma demee lu ma waa ji defoon ci caay-caay rek kilifa ga defal na ma teraanga junni toll muy Assane Ndiaye la tudd defe na ci ngee ngi lu ma defoon ci caay-caay moom waa ji rek kilifa ga defal na ma teraanga junni toll ma ne ko ak ñu mel nii lañu war di jox baat kon takk der yi xoolaat leen seen bopp xam ne am na adresse bu ñu leen wax bu bon boo xam ne xamu yéen a koy dégg ak biir dañuy wax ne policier du bàyyi dóor ma ne ko daa xam ne ki muy dóor du fayu rek policier du bàyyi dóor ki muy dóor daa xam du fayu rek waaye ponkal boo xam ne moo la man fop nga di ko jàpp di ko dóor mu dela seetaan nga defe ne ak njàmbaar la xam nga ne du njàmbaar danga am tax dalaa séddu cër ngir der bi mu la jox ak baat bi mu la jox yow yaa ko séddu cër moo tax di ko dóoru waaye xam nga ne bu moom ci mbedd wóor na doo loolu nag dafa mat a xam am na ñoo xam ne der gi daf leen a màndi daf leen a màndi bu ñu ko takkee maanaam ñoom ñu màndi ñoom dañuy defee daal di ay yàlla yu ndaw lañ walaay du ñu yàlla yu ndaw nañ xaar rek tey de kilifa yi ñuy fontoo de mboolem koo ci xam ne kii dem nga ba am ak problème ki la doon fay salaire de ci kilifa yi ngay daw dawaat dellu si làqu seen gannaaw gi ñu dimbali la kon na ci président wax lu garaaw la de loo xam ne du lu tuuti foofu laa ci yem docteur yi ma clinique yi bari na clinique yi bari na lool lool lool lool ku moom clinique yi yéen docteur yi yéen a ko moom dañ leen a fay ngir ngeen liggéeyal nit ñi ngeen wàññee ko berse di clinique di fayu nit ñi loo xam ne mënuñ koo am boo demee ci boo demee ci ci ci ci hôpital ba ñu jox la rendez boo xam ne bi boo xaa boo xaaree rendez-vous bi dee nga dem ci clinique ba booy xaar rendez bi di dee te ñoom ñoo fa ne daan lay joxoñ seen clinique rek boo demee fay analyse yaa ngi bëgg rey nit ñi rajo yaa ngi bëgg rey nit ñi yëf yaa bala bala nga bala balañ laa faj dañ li li nga amoon dañ koy jël ba mu jeex takk ba dootoo am loo fajoo ñu door a jubli sa mbir bu ko defee dee rek ngay dem soo munta soo munta soo munta jote ci ñoom nga dem fekk leen seeni clinique fay leen loolu góor gouvernement bi war na wax nag nit ñaa ngi bëgg a dee amatuñ fañ fañ fajoo amatuñ luñ fajoo amatuñ ku leen faj te lii ma wax de gouvernement war na ci bàyyi xel de ba ki dem dama am ak wéré di dem hôpital principal bi ma demee dañ ma dañ maa wax ne bala ngaa dugg da nga joxe téeméeri junni yoo xam ne koy teg fii moom ma génne téeméeri junni joxe téeméeri junni yooyu nekk naa fa ba jóge fa ab aspirine joxuñ ma ko ci benn aspirine <laughs> te noonu lañ lekk xaalis bi waa nag ki nga xam ne mënut a am fukki junni nag moom nu muy def ba ma duggee ba ci biir. Euh, maam Thierno maam Thierno maam Thierno Dieng mi nga xam ne mooy directeur bi ma ne ah naa woo ma euh, directeur bi waaye ndax comme maa ngi fii ci biir daal man fay naa ba pare naa ko woo mais gis nga ba ma ko wooyee ba jot ko ne ko maam Thierno ne ma kii ma ne euh, ma ne ko waaw ah, dama laa bëggoon gis maa ngi hôpital sax waaye xam nga lu ma ci teg waxee ba doom ne ko waaw ah, kañ laa lay mën a gis mu ne ma pet mu ne ma <laughs> waaw ma xam ne ginnaaw man lay wax lii naka nag ak ku néew doole koo xam ne ki yow mënoo dugg foofu boo demee yow noo def doo dee peut-être yow ñu teg la fi ngir nga war a dimbale doomaadama yi nga ne si bureau ku ne ci biir hôpital bëgg laa gis xamoo lu mu lay doyee ah nga naan ko peut-être à may leen gis ngeen ko nii de ku ngeen ci yaakaar ba defee ne yéen la fi nekkal nekkul leen seen bopp leen nekkal kon nañu xoolaat yëf yi xam ne yoon wi ñu jaar baaxut wii du jëme senegal kanam da koy delloo gannaaw rek journaliste yi xoolaat leen seen bopp waay jaxase ki bari na lool tappale yi bari na lool xabaar yi wérul yi bari na lool in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu xawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma faaltum naadimin yow xabaar buñ la jox yéen yi lañu sukkandikoo defe ne yéen ngi wax dëgg xabaar buñ la jox boo ko toppee ba ci biir xabaar ba du doon dëgg ab intérêt ca nekk boo xam ne bii moom ngay daw ca biir ba tax nga jaxase doomu aadama yi ba ñëpp nekk ci ne nekk ci nekk ci fitna te leen ko teg yow journaliste bi kon journaliste nañ xoolaat li ñuy wax xabaar yi ñuy joxe kat boo ko toppee ba ci biir da ngay dem ba yàgg nga xam ne ñii kat mérétoo wuñ métier mu tedd mii mérétoo wuñ ko de parce que wax ji moom li ci ëpp boo ko toppee ñu néew la ci wax dëgg ñu ci bari seen intérêt la ñuy wax nëbbu ko ci biir nag bala nga koo xam dugg ba ci biir kon journaliste nañ xoolaat seen bopp xoolaat doxin wi xoolaat ni ñuy joxe xabaar yi tey di wax dëgg te yàlla tax parce que ñoom bu ñu bu njàqee rek àdduna tukki ndax li ñuy wax nit ñi dañ koy gëm te buñ ko gëmee dañ ci sukkandiku te buñ ci ko dem ba ci biir dara du ci doon dëgg kon nañu xoolaat seen bopp xool ni ñuy joxe xalaat xabaar yi ñu nekk ci internet bi nañ xoolaat seen bopp nit wax yi waxam ba noppi nga seet ndiggante sa la ca neex nga ne ko kettet daal di koy publier yàqal ko addunaam te fekk li nga wax dara ci dëgg tegoo mbir ma loolu mën naa xool te fi ne fi mu ne saa boo demee ci internet bi dangay gis wax joo xam ne ji wax ja dañuy seet la leen ci neex rek ñu ñu kippi ko noonu rek yow publi publier ko daa daal la ko yónnee su ko defee nga naan dégg la di wax waay te fekk boo déglu woon la di wax safaan bala loolu nag loolu nag lu mat a bàyyi xel la kon xoolaat leen seen métier mi bi ci toppaat nag mooy mooy politiciens yi soo bëggee gis ab workat boo bëggee gis workat képp laa wor ak wor bi ngeen xam nit moom mën naa mucc ci ay nax waaye mënut a mucc ci ay wor xam nga wor moom kenn mënu cee mucc wor moom koo wóolu rek boo gisee workat xoolal politiciens yi yéen ñi ngeen ci xamoon xool leen leen déglu leen kenn ku nekk ba nga ko xamee lam daan wax ak li muy wax démb ak li muy wax tey caay ay mbëgg jëm yu soq ku bi jaaw kooku bu la waxee ne li muy wax li may wax baax na nga gëm ko daf laa neex rek politiciens yi yéen a ngi bëgg a yàq senegal jikko yi ngeen di wane gone yi di ci teg bët suñ leen ci royee ba mu sotti senegal gépp a yàqu nit koo xam ne kii doo wax li ngay def doo def li ngay wax wax aw fen ak wax wax aw fen ak dara nga yemale day nekk ci biir mbooloo wax fa fen woo xam ne bu subaa balaa ngoon nga weddiwaat ko ci meneen mbooloo doo bàyyi xel ña nga waxaloon ci suba loolu ku man loolu bu la say njaboot royee boo lëgg gis biir yow sax da nga ci am problème kon politiciens xoolaat leen seen doxin doxin wi ñaaw na lool te bon tey da ngeen nit ñi dañoo amul xel am na ñuy xel dañ cee mënu dara waaye nit ki moom boo ko waxee mu dañ nga waxaat ko mu dañ nga waxaat ko mu dañ boo ko bu ne waaw it dafa am kersa waaye xam ne day dañ gouvernement bi tàmbali ji Macky Sall Moustapha Niass doyen di siis sëñ Bassirou Gueye yéen ñett yi di am ngeen ay responsabilité yu rëy réew mi ndax àgg nañ ci fi mu ne politiciens yi yàq nañ politique ba ba xam ne lépp lu xewati lu ne yéen ñett lañ koy jiñ yéen war ngeen cee setal seen bopp nag ba nga xam ne bañ xam ne li ñuy wax du dëgg ndax kat lii fi xewoon bëkki démb kat coow laa ngi ne cobbay waaye kenn ku nekk am na noo ko xalaate ku nekk nag xam nga xam nga jëla ciy dëgg sa yoon dajay nekk wala sa yoon man caa nekk rek waaye ñëpp xam dëgg gi gono yu ndaw yi sax xam nañ dëgg lii nag li muy jur baaxut li muy jur baaxut li muy jur mooy da ngeen di àgg ci nag lépp lu ngeen yëkkatee di nit ñi contre ko te du ngeen ci man dara da ngeen dem ba wax dëgg sax dëgg bu ngeen ko waxee nit ñi weddi ko te du ngeen ko man dara da ko mën a régler parce que yéen a ko ji kon bi ragal yàlla loi bu ñu fi tëral mu jàll de yéen ko jàllale waaye da ngeen ko waxaat ci kanam yàlla de da ko waxaat ci kanam yàlla de loi boo xam ne day yàq diine li xam day yàq ngor boo xam ne day yàq jom nga ne mu wóor la nañ ñi xam ne lii baaxut bëgg ab salaire tax nga wate ko ba mu jàll ñu jaarale ko ci kaw doomu aadama yi wallaay da nga taxaw ci kaw kanam yàlla wa kulluhumu aati yawmal qiyaamati farda bu keroog da nga xam loo ko jëndee woon jaru te yéen ay tëral loi yi nag te yéen di bu ngeen juboon te mbaandu te def seen liggéey loi bala nga ko bala nga ko dana nekk loi bu leer nañ ñi boo xam ne du lor kenn bu la ko gouvernement wateloo bañal bu la ko oppo opposition wateloo bañal su ngeen ko watee ba noppi jox ko exécutif bi nga xam ne mooy mooy Macky Sall ko nguuram te yéen leen di contrôler te mu wóor leen di buñ jàddee ngeen teg leen ci yoon bu waawaa ñoom duñ mën a wàcc yoon wi loi yéen a koy tëral jox ko jox ko jox ko justice bi justice bi di àtte ngeen di ko contrôler su fekkee ne loi jaar na yoon ngeen contrôler justice mu jaar yoon kon su boobaa dara du xew kon lu xew yéen assemblée yéen a yéen yi nga xam yéen tëgg loi yi te loi te yàlla tëgg ne loi ba noppi ngeen lànk ne loi yàlla bi du fi jàll tëgg seeni loi teg ko ci kaw nit ñi leen def leen neex defe nit ñi xamuñ ci xam nañ ci dara lañ leen di jural nag mooy wan leen gannaaw leen seen bopp te xam ne doxin yu baaxut nit ñëpp ko xam nag ku wax ak ku waxut doo nga fi nekk waaye ñëpp xam li xew tappale yoo man a def lu mu lu mu jan jan jan jan jan ni nga ko xamee rek la ko nit ñi xamee dañ cee dara waaye bis dana ñëw nag ñu wan la ne xam nañ li nga doon def bàyyi leen xel ci lii bi mere président bu mu leen tax a jàdd ci yoon wax xam ne du yoon président ak nit la kuñ fal rek waaye nit ñee leen fal nag yéen itam nit ñi ngeen bëgg a jot su président bi jaaree yoon fa lay alhamdu bu jaarul yoon itam yéen na ngeen fexe ba jaar ci yoon waaye am réew kenn du ko taal président de la république noo ngi lay sargal ci bis bi ndax yaa jiiti réew mi di la xamal nag Sénégal sonn nañ Sénégal sonn nañ yi ñëw jaarati ji ñi ngi dëgmal nawet bi nit ñi amuñu jiwu nit ñi amuñu engrais nit ñi amuñu matériel nit ñi amuñu dund su fekkee daa nga def social lu baax la de waaye ren ji lañ ko gën a ajo nag kon dimbaleel nit ñi yërëmal nit ñi te jàppale leen boo ko defee yàlla dana yërëm yal dana dimbale te jàppale la irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama noo ngi nuyu réew mi yëpp di seeri si muntaqa yàlla ko yàlla yàgg réew mi ni bu amee jàmm mooma ma bëgg nag ñu bàyyiwaat ko xel bu baax a baax bu amee jàmm day mooma waaw bu jàmm am day bu dul woon ak moom ne tey réew bi tas na kon nag bu dul woon moom réew bi tas na tey defe naa ku doon umpale kuy sëñ Muntaxa umpale dara jaam umpale tolluwaayam defe naa ne lii jàll war na la moom kii mooy kan te moo kilifa yi diine yi mbokk réew mépp la ko bokkal ñépp ko nangul nu it nangul nan ko yàlla na ko fi yàlla yàggal noo ngi noo ngi ngi nuyu mbooloom yépp noo ngi nuyu ilimaan te di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér taxawaay bi rafet na lool liñ séentu woon ci moom lépp gis nañ ko sant nañ ko bu baax gërëm nañ ko yàlla na ko yàlla gërëm te te te te te dimbale ko ci barke Sëriñ Tuubaa bokki taalibe yi nongoogu nañ góorgóorluwaat nag nañ góorgóorluwaat nag am nañ kilifa gu ko mate nañ fexe ba mat doon taalibe bu ko mat wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.